combat bi li si xalaat moy comme euh, rek niñ ñu daan supporter chaque fois bu modlo di bëri ndax ñun nak vraiment ay dom parcelle lañ te modlo moy mooy lutteur donc euh, ñi koy ñaanal rek yalla may ko ndam euh, di wax ne combat bi aussi narut yom parce que ñaar lutteur yi xamanté nañu jot nañu laalante bu même sax su fekkee ne nul la mujjee woon mais xam nañ ne daal bi yoon moom xeex dina am ndam ni mom parcelle rek. ñu ñaan la deuguer mu yalla nako yalla may ndam rek comme d'habitude nuñ ko xamé woon rek mu ñew daan Modou Lo mu ñëw féete ko géej waaye ak jàmm comprendre nga mais combat ñu ci ñaan jamm dara bañ ci am comprendre nga ñu ñew bëri ko jamm ak salam la deuguer daan Modou jël bu set wécc comprendre nga dem fédé ko jamm ci way Modou mom mo man lak deuguer lak deuguer mom dafa wara dem rek ba lem ay bagages am toog war a xam duñu maro mom kiko man sax ñun ñoko man mën mom da koy daan bëri ba bëri bu leer naññ waaw comme man ni may daane sama doom day rek. <laughs> lu ma si jàngat mooy ku si nekk daal am nga xam-xamu bëre am na tamit euh, li ma si jàngat mooy li leen di gën a gaaw a départager mooy maanaam ku si ëpp sa morom fit. ak ku si gën a sa morom parce que li li ma jàngat ba léegi mooy lu ki mën rek kii mën na ko si li ma jàngat bu dee technique ñoom ñaar ñëpp am nañ ko bu dee doole ñoom ñaar am nañ ko bu pare ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ ku nekk yàgg nga gagné te fi mu toll dañoo toll foo xamante mais nag problème bi fi mu toll li ma si yaakaar mooy ma de wut lu mu am parce que fi mu loo nekk lu mu métti métti eggu fa donc loolu moom tey ji gagné mooy tax mu am dara donc am dara boobu nag li ma si jàngat mooy foog mu def effort pour mun a gagné Modou Lo te Modou Lo tamit jóge na si defet boo xamante ne fi mu toll tamit defet waaratu ko moo tax jàngal naa daal combat bu yu mbaram métti la il ko discuter âprement dinañ ko xeex xeex yu métti si li ma ragal si ma ragal ak si li ma jàngal. pour man Lac de am na avantage par rapport ak Modou Lo Lac moo ko ëpp physique moo ko ëpp physique moo ko ëpp yaram et que moo ko gën a rigoureux dans l'entraînement léegi nag ku war a gagné yàlla moo ko xam mais maa ngi ñaan yàlla nag yàlla may Lac de ndam. je pense que ne xëy na nit ñi dañuy jàpp ne euh, physique wala euh, physique gu mbër certes am na ci am na ci solo mais du c'est pas parce que ne nit ki da nga jàpp ne yaa ëpp ci wàllum corpulence rek ne noonu la war a demee ñëpp xam nañ ne Modou Lo à chaque fois buy bëreek euh, un poids lourd dañ koy xaw a xeeb mais gis nañ combat am ak ki nga xam ne moo di. waa ji dëkk Eumeu Sène euh, gis nañ fi mu mujjee parce que ñu bëri dañ joxoon ne Modou Lo euh, combat bi day yomb mu tegal ko chaise donc Lac aussi jot na saafonteeg moom te combat bu mujj bi daf koo dawoon ba mu jeex donc bii gis naa ne jàpp naa ne Modou dina taxaw moom it euh, pour def tout pour am ndam parce que nag combat bi de delà de tout parce que dafa soxla victoire parce que moom depuis un certain temps aussi gis nañ ne performance am xawon na wàññeeku tuuti donc momit it dafa am sas bu reuy parce que il faut que pour mu jëlaat euh, euh, amour amour bi population bi amon ci mom il faut que mu mu defaat effort bu bari pour mu pour mu ñëwaat lool ndam rek moko mëna may ya amna yaakaar ndam li parcel la jëm. war nga xamne mom mom modlo amul amul morom ci làmb ji waaw amul morom ci làmb ji waaw kep kum tasel mom xam nga na dalay defal baga da dem yonam bo ma won telephone sax jarul ngay ñew dama lay wax carrément kan moy daan waaw. su neexee yàlla ah non xam nga Modou Lo li muy bëri amul fenn amul fenn waaw sama gaa yaa ngi nii moo gaan bi ñoo daqaloo benn kër ma nga ne mais li muy bëri moom xam nga ne amul fenn fenn fenn waaw. Modou Lo du moroomu booy bi moo ko mën moo ko ëpp doole combat bi du yàgg waaw suñu man nu muy jeexee bëre lay jeexee bëre lay jeexee Modou Lo da koy xërtal ci xeex bëre bi ñëw ci xeex mu daan mu daan ko ci bëre. du moromam ne man cité 100% la nak si mo den modlo rek ma len di wax nañ def fair play comprendre na xam nañ la dege ray daan mourlo nañ def fair play rek mo suñu xexé la dege da ngay door mu tok lool mom mala ko assurer buñuy xex la dege da ngay door mu tok gilaay lu may wax ni lu ciaxaan nak su ko wédé modlo na ñëw arsalé xex bi suy arsalé xex la dege diko ko door mu tok lu may wax ni lu ciaxaan nak pour non violence waaw pour bu boobaa rek pour dem bëri ko ci jàmm ak salaam kenn bañ a kenn bañ xeex ten xam ne moom Modou moom ndam li moom jël na ko ba rek waaw.